voilà papa maa ngi lay nuyu nga wax ma tur bi. Ah, yàlla dogal na man El Hadj Malick laa tudd amuma turu cël cëlaan alaaj El Hadj Malick mag ma lay ñu tudd. macha allah El Hadj Malick tur bu màgg macha allah donc tey nga nekk fi nga xamante ne moom moo di Tiwaawan ah. gis nga jumaa ju bees bi nga xamante ne ñu ngi koy tabax yegagul nan nga gisee taaraay bi. jumaa ji taaraay bi yéeme na bu àggee ah te mën naa ne rafetal gay ci des jort naa ne gis ju naaw ji nu mel ci Afrique dana yow dana jafe jumaa yi ñu fi coow yëpp ci Afrique bu ji àggee dana xam ne du seen morom ndax ki ko yor yéen waa Leral TV ni ngeen leeral da ngeen a ñëw ci place bu leer kuy leeral ba ñëw ci place bu leer li bëgg da ko am jumaa ji boroom moo nu doy moo nu day moo ni day du xam-xamu euh, médecin du xam-xamu ingénieur du xam-xam mayu yàlla la moo ko ko fi defal yàlla na ko yàlla àggale ci jàmm ki xalifa général bi di sëñ man soor yàlla na ko fi yàlla bàyyi ba mu àggal jumaa ji ni mu ko bëggee ak ni ko ko fase yàlla na ko yàlla dogal. loolu ku ne xam na ne ku ne xam na ne juma nekk na bërëb boo xamante ne bi dañ fay jaamu yàlla. waaye itam mën na boole ay doomu aadama ñu mën fa di daje di waxtaan seen biir donc tey liin yi bés ba paree ak jàmm lan la mën a gën a yokk ci wàllu diine gi fii ci Tiwaawan. waaw parce que diine taar lañ ko xamal kon nag lu rafet day gën a yokk di day gën a attiré nitu diine te jumaa ji li ko gën a attiré jàkk eh, jumaay Alaaji Maalik ji mu njëkk a tabax mi ngi ci biir jumaa jooju mu ngi ñu bàyyi fi muy ab symbole juma juma ji ki ko tabaxoon mi ngi ñi wax na ci ay dërëm la ko tàmbalee woon ba yàlla indi ko lii te ay milliards di ko di ci dem kon nag moo tax dëgg moo am solo dëgg ah, il faut ci avant ci kanam lu mu lu mu dëgg lu mu tuuti tuuti ci kaw ay a ngi fi woon yoroon ay palais yëpp raaf la moom jumaam ji nekkoon ay dénk tey ci kaw. mais eh, taaraay bi ëpp na rafet ëpp ko yàlla àggale ci jàmm ñun ñëpp fekke ku yàlla na ko ñëpp fekke ci barke yonent bi yàlla eh, yàggal fi sëriñ bi muy sëñ Mbay Mansoor yàlla na ko fi yàlla yàggal. est-ce que mës nga gis jumaa ju taaroon nu mel. déedéet musuma koo gis musuma jumaa ju mel nii ak liggéey bu mel nii musuma koo gis yàlla ko yàlla yokk sëñ Mbay dafa xër sëñ Mbay dafa baax mooy taalibe mooy sëriñam sama sëriñ muy Ibrahima Mbay dëkk Caameen mooy sama sëriñ di taalibe sëñ Mbay mii Mansoor tudde na koy doomam man mii maay eh, taalibe ma ñun ñëpp daal mooy suñu sëriñ ndax man maay taalibe bi Ibrahima Mbaye Ibrahima mooy taalibe euh, kii euh, sëñ Mbaye Mansour ñun ñëpp ñoo di taalibe ñu ñëw ci Tiwaawan nag fekk fi jumaa ju mel nii sëñ mbay liggéey ko yàlla ko yàlla jàppale sëñ Mbaye yàlla na yàlla guddal fanam moog président Macky Sall yàlla na yàlla guddal seen fan. yéen ñii itam yor télé bi itam wallaay morom. yéen a ngi liggéey li ngeen war a liggéey liñ leen sant yéen a koy def yàlla na yàlla fay leen yàlla na yàlla yokk seen i fan guddal seen i wërsëg euh, may leen sutura sàmm leen sàmm njabootu Sénégal yàlla na fi yàlla def jàmm.